ñaan suñu borom di wax ne ay taalibe lan ay julli na yëpp dox tànki taalibe tànki julli ñëwoon ci bis bu rëy bi nga xam ne moom la jëm muy bis Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñuy ñaan yàlla na fi yàgg yàgg di daje ko célébrer euh, ndaxte euh, bis bi sant la te ñun war a sant ndax daaw jamono ji ñëwoon nañ seet sëriñ bi jotaay bi mel ni lan toogoon am luñ fa waxoon am luñ fa tënkoon yàlla may ñu ñu ñëwaat ren toogaat même jotaay bi am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi fi woon daaw nekkutuñu fi yàlla nañu suñu borom yërëm am ñoo xam ne bëgg na ñëw mënuñ ñëw am na lu leen gàllankoor donc bu ñu yàgg suñu borom defee loolu duñ ci sant yàlla bu baax a baax a baax donc loolu vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci li nga xam ne yàlla suñu borom defal na ko ñu ñëwaat teewee waane lépp daal li mën a wax pour gàttal ndaxte jotaay bi xaw na xat sëñ bi ñu ko soxla bari na li ñuy sàkku daal sëñ bi mooy nga dool ñu ñaan say ñaan ñu ngi koy gis li ñuy li ñuy jàppalee tamit ñu ngi koy gis bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey ñi nga ñaanal ñu sa barke maam lindee sóobu lépp lu sóobu ci programme bi yàlla mottali ko njegale ko ak suñu saw maanaam muy loo xam ne Sénégal yëpp ñoo ciy jariñu rawatina dëkk bii di Touba ñu wax di lay wax daal ñun suñu disponibilité ci lépp loo xam ne soxla nga ñu ci yaakaar ne mën nañ ci indi suñu apport lu mu doon tamit taxaw na pour jàppale rek ci liggéey bi nga xam ne moom nga yore muy sa liggéey yu man loolu daal mooy kàddu yoo xam ne dañ doon dañ ko ci sànni muy kàddu yu gàtt di sant bu baax a baax di dool di sant bu baax Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi ñu may ñu fekkee jotaay bi jërëjëf